ak balaa. Hmm. am na ay natt yoo xam ne mën na teguwaat ci kaw Sénégal nee na man la la yan ñaan nga ñuy baaxee wala yan ñaan ngay dicté pour euh, ñu mën a moytu loolu. Hmm, baax na alhamdulilah maa ngi sant yàlla euh, di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tontu yóbbante bi nga ma laaj euh, li ma wax mooy ne solution bi mën naa ko wax fii ngeen dégg ko hmm, wax ju nekk tam jaam xeebu laa mais suñu borom mooy def lu ko neex. Mhm, d'accord ene euh, naa jàmm Sénégal sénégalais la jullit laa euh, xawma it yàlla moo xam. Mhm. waaye yàlla lu ko neex mu def ak jaamam. Mhm. Euh, nattu ak musiba lu koy waral rek mooy bakkaar yu bëri. kon nañ dellu ci yàlla. nañ ñëpp dellu ci yàlla buñ delloo ci yàlla yàlla dinañu musal mais dafa am benn solution boo xam ne mooy saafara loolu mooy damaa wax ne li ma bëgg te yàlla bëgg ko. te mu war te askan wi bëgg ko lislaam bëgg ko mooy dama ñaan proposé kilifa diine yëpp daje ma koy ñaan ci yar ak teggin fas yéene dox ko tam mm-hmm. dox ci kër diine yëpp waxtaan ci ak ñoom ci yar ak teggin te mos naa ko def yàgg na mm-hmm. mooy xalifa yi général yi ci Sénégal yëpp généraux yi ak euh, ki nga xam ne moo jiite labbe bi ak ki nga xam ne mooy président de la république Macky Sall ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi ak askan bi ñu dajee moo xam pare de la république la moo xam place bu ñu ko mën defee lii daal laa wax ne sama borom baaxee na ma bu ñu ko defee mooy solution bi nga xam ne du jël temps te incha allah taala musiba boobu dana fegu yeneen musiba yi ñuy dund nii sax ak jafe-jafe yi yàlla dana ko teggi dana ko wàññi parce que mhm. imaginer tey xalifa général kul murit toog te nga xalifa Tiwaawoon toog xalifa Kaw toog xalifa Medina Baye toog xalifa Laayeen xaadare chérif yi fii ak ñëpp labbe bi toog président toog ñu même bu ñu waxtaanul sax ñëpp koy rafetlu dégg nga joxante loxo loolu image boobu mm-hmm. dana indi lu rëy rëy ci Sénégal te ñooñu bu dajee mm-hmm. ak kilifteef gi yéen yàlla may ak xalaatkat yi am ak taalibe yi ñu am ak mujur muy café danañ mën a génne foofu message boo xam ne obligation lay doon boo xam ne mm-hmm. ñëpp pay la wax jotaay la pay man loolu laa oote loolu moo ëpp doole fa yàlla ci sarax yaa ngi dox pour mu am te jokk mbokk la te yoonu saraxam dafa wax ne képp koo xam ne nii am nañ nit dana dem ba bu war a dee dese ñetti fan wala ay seconde nga jokk sa mbokk rek yàlla yokkal la fanweeri at um sa moo ko wax te lii jokk mbokk la lii daal mooy li ma yàlla baaxee ba moo wax wax jooju mm-hmm. dama ci teg solution mooy lii nii buñ ko defee ah dama ne tàll naa ci loxo sénégalais loolu ñëpp ci bokk parce que loolu du du loolu lu ma moom mm-hmm. du lu ma ñaareel bi ñaareel bi sarax si du ay sarax yi rey ga ay deret ak ay nangam ak nangam mm-hmm. ñaan nag moom fi lañ ko fekk na sénégalais yëpp ñaan lii antu yaakaar naa lu ñaan ñaan ñaan tamit yàlla ne wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu dara gënu ko te ki ak ñoom ànd ak ñëw ki jiite tijaan ak ñoom ànd ak ñëw waa kër bàyyi ànd ak catholique ñëw taxut kenn génn ki sañ dem gën dem dem keneen ànd la boo xam ne dajale boo xam ne rek maa ngi ñaan président Macky Sall mm-hmm. mu mu nangul ma loolu ñaan naa ko ci audience euh, xam naa fi may jaar ko laaj ko audience citoyen la mm-hmm. dégg nga wax bi waaye tamit euh, membre la conseil euh, économique social environnemental que mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass laa bokk te sama sama la waaye dama am ndigal wax ko ci kaw ñëpp dégg ko ñu baax ñi danañ ko rafetlu mhm. ñu bëgg lu baax danañ ci ñaan ñi ñuy ragal mu am danañ wax ne yàlla nañu yàlla musal ci loolu mhm. loolu moo tax ma wax ko ndigal laa ci am waxuma ko ci sama bànneexi mhm. bakkan kooku mooy benn bi ñaareel bi tam li ma wax nii tënkuma ci xaalis tënkuma ci sarax tënkuma ci deret xaaruma ci tam ñu jël alal jox ma ko pour ma dem defal sarax Sénégal sarax si ak ñaan gi mooy lii ne ñëpp ñaan yàlla amal lii te incha allah danaa ko dox danaa ci jéem te maa ngi ci tàllal loxo képp kuy jullit wala ngay Sénégal jullit catholique ñu bokk dox ko incha allahu taala ku ci bëgg rek maa ngi lay tàllal loxo dinaa seeti kilifa yi damay xaar ba jotaay Masaalikul Jinaan bi mhm. passé ma jublu ci loolu maa ngi déglu président de la République sama di xaar mu ooma ngir askanu Sénégal ngir l'islam bi ñu waxtaanee lii te lii bëgg-bëgg la boo xam ne mi ngi ci xol kilifa diine yi mhm. mi ngi ci xolu jullit ñëpp lii daal mooy solution bi sénégalais sénégalais maa ngi ci oo ñëpp bu amoon nag du ma yàlla jaamu yàlla bu xeebu laa du tëkkutam waaye su boobaa man jotal naa li nga xam ne moom la ma yàlla jërëjëf jërëjëf Cheikh ñu mayoon ci temps nag euh, jeex na ñu amoon euh, mbégte ak plaisir dalal ki nga xam ne mooy xalifa Serigne Mamour Niass nekk it euh, président COMAF muy comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda ñu koy woowee tamit fidèle serviteur dañu bëggul dégg président mais fidèle serviteur la bëgg di dégg bu mouvement ànd ak askan wi natal Sénégal nekk it membre conseil économique social ak environnemental Cheikh Baye Mamour Niass ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah maa ngi sant yàlla di jël jiwoon saa salaam di la sant yow tam mi nga xam ne yaa ñu invité ci plateau bi nga xam ne occasion la ñu waxtaan ak askanu Sénégal waxtaan ak jullit ñi occasion la ñu manifester suñu mbégte ci Masaalikul Jinaan occasion la ñu xamante fee kilifa yu tedd yi nga xam ne ay borom xalaat lañ te borom diine lañ. waaye occasion la tamit ñu gën la xam li la ñu seen ci tele bi. léegi ñu dégg say wax sa yaatu sa xam-xam sa dal sa mm. expérience sa éloquence dañ lay gërëm bu baax ci loolu ñëwaat rek ci li nga xam ne moom nga ba mujj ak sànq di ko mm-hmm. confirmer ne incha allah taala loolu dafa ànd ak ubbeeku boo xam ne dafay ñëwal Sénégal mm-hmm. oote wu ma xam-xam du ma gisaane kat jaamu bi yàlla bu xeebu la mm-hmm. ku nekk ci ñun danay gént bu dee gént la ku nekk si ñun tamit danay xalaat bu dee xalaat la waaye lii dama ci am ndigal sama borom gannaaw bu ma duggee xalwa ñeent fukki fan ci koor gi mhm. ba ci gannaaw koor gi ci la ci ma xel mënumaa wax sax lépp mhm. waaye nag ñëpp seen xel dal euh, tiitaluma nit ñi tuma ci dara te maa ngi kontaan di sant yàlla ndax dëgg rek mooy dëgg li ko professeur bu tedd bi bindikat bu tedd bi mhm. taalibe xaadim rasul bu tedd bi nga xam ne xam-xam yi mu fi wax tey ak fidélité bi mu wane euh, wax ne engage ñooy engagé wu fii xam na ne lii neex na sëñ sëñ Cheikh si si Sidi Mountakha xam na neex na Cheikh boo xam na neex na sëriñ Tuubaa xam ne neex na yàlla ak yonentam mm-hmm. yooyu it suñu sopp oustaz xaadim yow di nga nangu loolu rafetlu ko yow di nga laaj moo ko sawar ci parce que jàmmal nga bëgg mm-hmm. moo tax parce que ñu bëri tiit dégg ñu koy dégg dañuy tiit dégg nga loolu mooy solution bi du leneen du leneen nag nañ ci gaaw na ci président gaaw mm-hmm. te yaakaar naa ne bëgg na lislaam bëgg na jàmm na ci ñëpp gaaw te incha allah wax nga ne yéen a sama gannaaw man tam pale naa ñu benn bët benn xel benn nopp benn xol benn bopp benn tànk benn bëgg-bëgg ñu beesal yéene bi daf ko teel rek tax tuñ ci dara lu mooy loolu rek daje bi na am muy daje pay Sénégal def loo xam ne kenn mësu ko def am lu kenn mësta am xéewal sotteeku jàmm am terewut opposant bi mu ngi ci li nekk mu ngi ci président mu ngi ci président ki ci keneen ki gëmul dara sax ñu ngi koy oo boole nañ ko ci mm-hmm. su boobaa nag bu boobaa ku war a faluwaat yàlla mooy fale ki wax na ko sant mm-hmm. allahu maalikal mulki loolu daal mooy li nga xam koo dox mm-hmm. euh, bu yàgg ci jamono M23 ma fàttali foofu rek mooy bi réew mi xawee doy waat suñu borom ma baaxee jàmbu xeebu laa nag ko teewu ma bi loolu amee boobu maa ngi nekk sénateur ma contacté palais de la république wax ak ñoom mënu ma jot président parce que dafa ne recevoir ma jox ma ñu ma jox pare na ma heure boo soxlaa rek ñëw waaye jamono réew mi dafa xatoon ñu ne ma dafa xaw xat dégg bi ma jël ndigal ci moom dem naa seeti xalifa général ku murid jamono yooyu mhm. mu ne ma d'accord naa jox naa la ndigal heure bu ootee rek man dinaa teew mhm. ma dem ki sëñ Abdou Aziz si al amin mhm. mu ne ma nangul naa la li ngay dox jox naa la kàddu tiwaawal heure bu ñu ñëw abonné ah, ah, ñu ñëw ñëw rek ñu ñëw ci pale bi ma wër kilifa diine yëpp laayeen njaaseen dem sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ñoom ñëpp yàlla yàlla guddal seen fan ñu jaañ yàlla yërëm dem seen dem ci Euh, euh, Théodore Adrien Sarr. Mhm. mu ne ma damaa waroon a voyager ni ki tey dama la a jël vol. mais ñun dañoo am rapport bu ñu am ci yow daan nga def ay caravane de la paix di su leen di wër réew mi. Mhm. te yàlla tax waaye jot nañu rapport ne da ngay seeti jumaa yi dikk waaye da seeti église. Mhm. église boo dem da fa dugg wax fa jàmm oote fa jàmm. mu ne loolu dem na ba Rome ba kilifa Rome yónni na ma leetar di ma wax ci yow ne kii nit jàmm la. loolu ma xam ci yow ak ni discipline bi nga ñëw foo mën naa sama tukki bi ngir li ma oo nii. fee 48 heures bu ma ooyee man maa nga pale ma dem ci euh, Ousmane euh, sëñ Dans euh, kii. professeur Amath Dansokho yàlla na ko yàlla dem ci Pape Moustapha dem ci président de SEC. Mhm. Ousmane Tanor Dieng Alioune Tine mënumaa lim ñëpp. Mhm. ma def itte ñëpp ma def samay pexe seeti leen waxtaan ak ñoom bañ ne ma waaw ma woote palais de la république gars yi di ma dawloo ma oote ñu di ma dawloo ma oote ma leen nag lii waxoon naa leen ko. Mhm. te tëkkuwuma waaye lii gi dafay daanu. naa ci yaa ngi dégg wax bi ca palais ba ak fii dégg nga ñu woy mujj gi ku baax ku tedd moomu oo mooy euh, euh, sëñ Madické Niang ma fàtt na ko ma fàtte ko moom moomu oo euh, professeur Madické di maître di candidat moomu oo dalal ma wax ma nu ma mën a dégg layal ma lay bu rafet dama daal mën ñëget président ñu ngi jégatu foog moom mën a valider lii man ko ah, man def naa li ma war éenuma éenuma xëy de yaa ngi toog mais nguur gi nguur gi day dem loolu am na yàlla seetlu ne mujj gi loolu nguur googu daanu na yàlla dafa bëgg màndu mhm. jaam bu xeebu laa nag waaye lu ko neex ma def lii nag suñ ko defee moo gën suñ ko defut waxuma xëy dana am de mhm. waaye la ma wax wax naa ko ba pare mais su amul et dana am métti mais état bi ñoo ci gën a métti état bi ñooy gën a métti mhm. ci nattu yi wàcc kon maa ngi oo état bi di oo ñëpp di kontaan ci mbokk yi ma fekk ñu rafetlu loolu fas naa ina dox ko te talal muy ndami ñëpp di ndami kër yëpp mm-hmm. di ndami te bu amee tamit ndami président la ndami opposition bi la ndami ñëpp la maa ngi ndamul islam la wasalaamaaleykum maa ngi lay gërëm di nuyu téléspectateurs yi doon seetaan di nuyu soppe yi du nuy xarit yi di oote jàmm ci réew mi di oote mbégte ci réew mi di bëggal mboolem jullit ñi incha allahu taala ak mboolem askanu Sénégal na yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def xéewal yàlla na yàlla may mujj gu rafet amiin yàlla na fi yàlla def jàmm fi la yem ak yéen seen émission c'est à débattre amoon na mbégte lool di leen ko présenté alxames bu jot ak sunu ay invité kon nag jaa ngeen jëf di leen dig daje alxames bi di ñëw incha allah rabi ci yeneen thème jaa ngeen jëf ba beneen